sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal inna alhamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala haadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبه من يعلم ان الله يسمعه ويراه عباد الله حدث عظيم وخطب جسيم ورد ذكره في القران الكريم مرارا وتكرارا wa kathirun min annaasi fi gaflatin an hada alxadas wa an alistidaadi lahu dalikum ibad allah huwa almawt wa ma adraka ma almawt wa ma yakunu baada ibad allah الموت هو الفيصل بين هذه الدار ودار القرار والفاصل بين وقت العمل والجزاء عليه وبعد الموت عباد الله ليس لأحد من اعتذار wa ma lahu min sabilin lil awdati ila hadihi daar wa fi baabi alxasanaati laa majaala lahu ila ziyaadatin aw istiksaar wa fi baabi sayyi'aati laa majaala lahu ila tawbatin aw istigfaar fa laysa bacda almawti ila xufratun yujraju fiha alabdu takunu lahu rawdatun min riyaadi aljanna aw xufratun min xufari annaar wa min sha'ni almu'min an yadkura almawta li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi xadiisin rawaahu abu hurayrata radiyallahu anhu qaal aktiru min dikri haadimi lladaat wa min calaamaati tadakkuri almawti an takuna aataaruhu zaahiratan fi suluuki alinsaani maca nafsihi wa maca alaaxariin wa maca rabbi alcaalamiin falmawtu zaajirun linnafsi can almuharramaat wa baacisun laha cala altaacaati walqurbaat faqad ruwiya anna umar radiyallahu anhu kaana yalbasu xaataman nuqisha alayhi kafa bilmawti waacidan ya xumar wa yaqulu shaacir walaqad waladatka ummuka yabna aadama baakiya wannaasu xawlaka yadxakuuna surura faxris ala yowmin takunu ida bakaw fi yowmi mawtika daaxikan masrura qaala bacduhum daxalnaa ala ataa assilmi نعوده في مرضه الذي مات فيه فقلنا له كيف ترى حالك فقال الموت في عنقي والقبر ما يفعل بي فبكى بكاء شديدا bokk jullit yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tuubal borom bi di sàkku njëggalam di xam le ne moom rek mooy buur te kenn mënatu jaamu jaamu gu ñu nangu lu dul ci sunnas muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ci yàlla saxal bokk yi ñu ngi leen di dénk ginnaaw bu ñu dénkee suñu bokk ak ragal yàlla ak di ko bàyyi xel ak di ko yëg fu mu nekk ngir xam ne yàlla mi ngi nuy dégg te mi ngi nuy gis mbokk yi nag dafa am xew-xew bu rëy di lu rëy rëy loo xam ne yàlla daf koy tudd lu baree bari ci alquranul karim te ñu baree bari ci noonu dañ koy sàggane lool day mel ni sax waa waajaluñ ko loola mooy lan mbokk yi mooy dee te dee ak la nekk ci ginnaawam lu mat a bàyyi xel la mbokk yi dee dey moo tàggale sunu kër gi ak kër ga ca des dee mbokk yi bu xasee ba agsi moo amatul benn ngànt bu nit mën a am amul benn yoon bu mën a jàll jàll jaarit ba delsiwaat fii ci àdduna pour def lu baax mbokk yi bu xas dee xasee ñëw jëf jeex na fay rekk moo ca des kon mel ni su fekkee buntub ay yiw la woon mënatoo def lu ko dolli bu dee buntub safaan it tuub buntub tëj tuub tëju na ci yow jéggulu tëj na ci yow laana lu fa des mooy am ab kàmb rek bu ñuy gas ba mu xóot ñu dugal la fa dugal nu fa ñun ñëpp kàmb googa nag ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee mooy mën naa nekk kàmb goo xam ne ay xéewal rek lañ fay fekk day naat day mel ni àjjana bu tàmbali àjjana lay doon ci nun waaye nag bokk yi mën naa doon beneen kàmb boo xam ne day tàng jër bari lool yu cay lore yàlla na ci yàlla musal bokk yi fàttaliku de dafa bokk ci mbir yi ndax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne fu ñu toll nañuy fàttaliku dee fu ngeen toll na ngeen di fàttaliku tuddewu ko de sax fii dafa wax ne mooy li nga xam ne saa su ñëwee bam bànneex bu mu la fekkaloon foofu la koy dakkale boo xam ko àdduna bu mën a doon ba nit di ko am muy alal muy njaboot muy lu mu mën a doon muy daraja cër boo mën a am rek bu dee xase ñëw loola jeex na tàkk kon moo tax ñu war di ko fàttaliku waaye bokk yi nag bu ñuy wax fàttaliku dee it waxuñu rek ñu ne ñoo ngi fàttaliku dee waaye fàttaliku yi dafa war a am lu mu def ci suñu digg ak suñu bopp am lu mu war a def suñu digg ak suñuy moroom dootuñ toon suñuy moroom danañ xam ne lu ñu leen mën a def bu ëllëgee sun danañ taxaw ci suñ kanam borom su dee ñoo leen tooñoon ñu jël suñu yiw di leen jox suñu amut aw yiw nag ñu jël seen lu bon dinu jox kon loolu day tax ba képp kuy fàttaliku dee lam la war a julal mooy sa digg ak sa jaam mbokk mbokk jaam yàlla yi nga war leen a bàyyi xel ci doo leen lor ci dara ci sa làmmiñ wala si lu mën a doon mbokk yi eh, nañu bàyyi xel ne ku fàttaliku dee it da nga yëg sa digg ak saw te gën koo dolli ndax ñu ñu baax ñëpp daanañ ko fàttaliku moom dee di ko bàyyi xel doy na ci rek ñu wax ne Seydina Omar radiyallahu an wax nañu ne dafa amoon ab jaaro boo xam ne da caa bind yow Omar day doy na la waar ngay deey mi nga xam ne mi ci sa kanam loolu maa ngi fàttaliku benn mbokk boo xam ne ku baax la mas na maa dugg ci néegu biiram mas na maa duggal ci néegu biiram ma gis mu bind fa lu mel noonu kon loolu day wane na rek ñu baax ñëpp ñu ci baree bari ñu ngi sóoru ñu ngi bàyyi xel de ngir nag ni ko benn ko woykat waxe woon rek so doomu aadama bi muy ñëw ci kaw suuf dafay ñëw moom mi ngi jooy waaye ñi mu fi fekk si ñu ngi ree mu ne nag war ngaa fexe ba bu ëllëgee boo fi bàyyi ko nit ñuy jooy yow ngay ree ndax la ngay dajeek sa digg sa borom mbokk yi am na ku baax di nitu yàlla koo xam ne dafa mas a ñëw dafa am ñu ñëw di ko seet ci feebar boo xam ne ca mujj faatoo ñu laaj ko ne ko waaw yow lu luy sa mbir fi mu ne mu ne ah sama mbir de mooy fi ne de moom dee ngi nii ci sama kanam bàmmeel a ngi nii ci sama kanam alxiyaamatu mu yowmal xiyaam mi ngi ci sama kanam ah siraatu siraat mi ci sama kanam xaw ma danaa jéggi wala danaa rot ci safara yàlla na ci yàlla musal waaye waaye daal man xaw ma fan lay mujj bokk yi kii nit ku yàlla la nit ku baax koo xam ne moo wax lii kon nun nag ñi nga xam ne ku ne xam na li ñu nekk ana lu nu war a wax suñu digg ak suñu boroom mbokk yi dee ngi ñëw de te du fi bàyyi kenn ana ñi nu jiitu woon lu waay baax baax du la fi ba lu waaye bon bon du la fi bàyyi lu waaye am daraja lu mu rëy rëy du la fi ba te it amul pexe mu nit mën a jaar ba mucc ci dee ana ku ci ku mas def pexe moo xam ne tax na muy dund ba tey dund junniy at wala mu dund sax ñaar téeméeri at amut amul menn pexe mu nit mën a def amul pexe itam moo xam ne bu dig ba agsee ni ko yàlla waxee mën ngaa fexe ba dig booba weesu kon bokk yi li gën a mat fàttaliku ci dee sax mooy dee daa xàmmewul mag ak ndaw ndax ndaw ñu bari dañuy defee ne ñoom dee ñëw ganeegu leen ndax ñoom ay ndaw lañ bokk yi nañu xam ne dee xàmmewul ku mag xàmmewul ku ndaw xàmmewul ku ku wér xàmmewul ku feebar an bari na ak kër goo xam ne da nga fay fekk ku feebar ñëpp di ko xaaru am koo xam ne sax moo koy taxawu di ko taxawu sunu borom ñëw jël ki koy taxawu bàyyi fa ka feebar kon loolu mooy wane ne sunu borom coobaram rek lay jëfe kon boo loo wér wér wér na xam ne dee euh, euh, wérat aw yoon la ci rek waaye du du du du mbirum sunu borom mën na ko jaarale fereen kon loolu lay wane rek ne. bokk yi dee lu mat a bàyyi xel na ñu ñu ñu di ko ñaan suñu borom subhaanahu wa taala nag buy agsi ba sa euh, maanaam sukkuraat jot su boobaa yàlla nu yàlla taxawu xam ngeen ne làmmiñ dana dagg ay gët dootu gëmm la ca des rek mooy sàng su boobaa yàlla na yàlla saxal ci ngëmam ñu ngi ñaan sunu borom mu musal nu ci gàcce àdduna ak gàcce alaxira ñu ngi ñaan sunu borom subhaanahu wa taala baat bii mujj génn ci ñun bu ñuy génn àdduna yàlla na doon baatub laa ilaha illa allah muhammad rasulullah sunu borom ñoo ngi lay ñaan sunu dund li ci mujj yàlla na doon li ci gën waaye sunuy jëf li ci mujj yàlla na doon yi gën ci jëf ci bis yi gën ci sunuy mujj sunuy sunuy bis yàlla na doon bis bi ñuy dajeeg sunu borom subhaanahu wa taala yàlla na yàlla defal nu dee muy sunu noflaay sunu demee ba dee ñëw ba soppee xarit yi ak ñi ñu amoon ñépp yóbbu nu ba dox ba ca sunu bàmmeel dugal nu fa wan nu ginnaaw yow sunu borom ñoo ngi lay ñaan nga doon sunu wéttal doon sunu ndimbal yow sunu borom ñoo ngi ñaan ba barab boobee yàlla na doon rawda te bu mu doon kasu kàmb sawra yow sunu borom ñoo ngi ñaan yàlla bu ñu dajeek lu ñuy tiit foofee ci sawar ca ca ca barab boobee yàlla buy ñëw yàlla nañu fekk ñu tekk ci siraatul mustaqim wasalaatu wasalaamu ala xayri xalqihi muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa asxaabihi ajmain ibadallah walmawtu mudriku kulli abdin la muxaala wa mulaaqiihi bila rayb yaqulu llahu tabaraka wa taala aynama takunu yudrikum almawt walmawtu lahu ajalun maxduud fa ida jaa ajaluhum la yastaaxiruuna saacatan wala yastaqdimuun walmawtu ibadallah laa yufarriqu bayna sagirin wa kabirin wa maridin wa saxiix yaqulu shaacir fa kam min saxiixin maata min gayri cillatin wa kam min saqiimin aasha xiinan min addahri faqad yadxulu almawtu ila ixda buyutina wa yakunu fiihi rajulun musinnun wa aaxaru maridun fa yaaxudu min albeyti asaxa man fiihi rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina adaaba annaar allahuma hawwin alayna sakaraati almawti ida xallat wa thabbitna ida waqaat wa thaqula allisaanu wa awqarat alaynaan wa muddat alakfaanu ya arhama arrahimin allahuma ya xayu ya qayuum ya dal jalaali wal ikraam axsin aqibatana fi lumuuri kulliha wa ajirna min xisdi dunya wa adaabi alaaxira allahuma ijcal axira kalaamina min addunya shahaadata an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah allahuma ijcal xayra ay acmaalina awaaxiraha wa xayra acmaalina xawaatimaha wa xayra ayaamina yowma nalqaaka fii wali jaala almawta raaxaatin wa mafraxatan min kulli charrin wa karbin baaqaya allahu waxfad li jisma xaysu ruuxu faana xari fi lqabri laa tubliyanhu dahraya allahu waxfad li jisma xaysu ruuxu faaraqani fi lqabri laa tubliyanhu dahraya allahu wa kun nasiiri aniisi inama dafanu jismi fa sirtu waxidan tammaya allahu laa tadmanna maci maa qad yurawwicni bal ikfiyan kulla ma axshaahu yallaahu waltuf binaa wa qawwinaa wa kun lanaa wa xabnanaa xasanal xitaami rabbinaa wa salliyan ala nabii wa sallimi waqdi bi xaajata kulli muslimin allahuma salli salli ala sayidina muhammadin alfatix lima uxliq walxaatimi lima sabaq naasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal